billahi mina bismillah bismillah auzu billahi mina sheytaani bismillahi rahmaani rahim waaw ah, mbokki waa àdduna maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp tawféex ñëpp am tawféex ak jàmm salaam ak wërsëg di ko ñaanal ñëpp kàttan si borom. li ko nit ñi jàmbat bari na lool laataan cee sori nag dañuy bàyyi yow mi koy jëfandikoo yow mi koy jëfandikoo nit ñi nga leeral ci nit ñi fàttaliwaat waaw bisimilah loolu dinaa ci sawara a tontu bu baax ndax yokk awra dafa doon loo xamante ne nit ki boo nekkoo dina damay yokk awra da koy jaaxal ndax danaan kii nan lay mën a defee yokk awra boo rawatina yokk awra boo xamante ni duñu la jox garab nga naan duñu la jox dara nga takk dañu koy def foo mun ti nekk ci àdduna bi rek ñu defal la ko loolu mbokk mi may seetaan bu ko déggee dina ko jaaxal waaye nag am na foo xamante ni boo fa xoolee warulaa jaaxal ndax boo fàttalikoo boo xoolee si ginnaaw nga xam ne lépp yàlla suñu borom la sa yàlla mooy def lépp ci jàmm lépp loo xamante ne luy nit di def rek ci yàlla luy soqee ko ci yàlla la damay ñaan yàlla comme boo fi nekkul nga nekk bitim réew wala nga nekk ci biir réew mi bu la neexee bul déplacé wu bu sa awra gàttee boo ma woowee ma defal la ko ndax yokk awra awra dafa doon loo xamante ne ñu bëri dañu fàtte ni rab da koy def da nga gis koo xamante ni mën na amee àndandoo rab boo xamante ni chaque jour da nga gis awra bi day dellu wala bu demee bay ànd ak soxnaam nga gis awra bi tamit di dellu ba tuuti loolu rab da koy def rab tamit mën na la jàpp ba nga xamante ni boo demee bay sëy ak sa soxna day gaaw a dellu awra bi day dellu ba pare da gaaw a jot sa bopp loolu yëpp boo ci bëggee mucc dangay ngay ñëw sëñ xaadim ma tànn loola ci galañ yii nii boo tànnee ci galañ yii si boo tànnee ci galañ yi exemple nga ni lii laa bëgg sama awra mu tol ko ñu ne lii nga ma bëgg mu tol ko dama lay laaj sa tur laaj la sa turu papa laaj la sa turu yaay nga jox ma ko ma def ko dugal ko def li may def def samay jet def samay ñaan yàlla sa awra toll ni nga koy toll mbir mii nag du mbirum caaxaan ndax boo seetloo Youssouf bi ma dalee def yokk awra bi yàgg na def na ay at ci ginnaaw ay at sa boobaak léegi ñoo ngi ciy gën a dëggu ñoo ngi ciy gën a def nit ñaa ngi ciy gis seen bopp kon yokk awra bi du caaxaan sa niñ la koy defalee ci bant bii jigéen ki tamit noonu lañ ko koy defalee kon yokk awra Youssouf du ay caaxaan waaw loo xam yokk awra à distance na ñoo xamante ni yokk awra à distance ni mu mën a nekkee maanaam mooy boo fi nekkul comme nga nekk bitim réew comme ni ñu koy defal ñi nga xamante ne ñoo ngi bitim réew maanaam bu ñu leen koy defal da nga dama lay laaj sa numéro comme ni exemple nga tànn. boo tànnee ba pare ma laaj la sa tur sa turu papa sa turu yaay si tur yooyu laay boole ak jat yi may def def la may def ndax parce que nit ki boo koy ñaanal sa xamoo turam xamoo turu papaam xamoo turu yaayam xamoo rawaanam munoo koo ñaanal ñun si rawaan boobu la ñuy jàpp def ci lañ ciy def ñaan yàlla def la ñuy def ba awra ba mën a toll nii awra bi nag bu ñu ko defee ba mu toll nii ba mu yokk ba tol nii bu caage ni day toll nii continuer nii rek déedéet comme boo demee bay sëy ci lay awra bi développé wu tol nii waaye tant que sëyagoo awra bi di toll nii bis boo dee bay soxla ko pour sëy sera awra bi di sekki toll nii kon yokk awra du ay caaxaan ay caaxaan bàyyiwuñu fi toog di waxal nit ñi loo xamante ni amul wala wax loo xamante ne duñ ko def loolu du ma ko def Youssou lépp loo xam ne dañ koy def si yokk awra bi lu wér la bu doon ay naxee la kon duñ ci àgg fu ne duñ ci dem fu ne nit du ñu fekk fii du ñu jël si du ñu yóbbu fu ne ci àdduna bi ñu leen koy defal bu demee ba maanaam tubaab di ko gëm ndax tubaab ku xam tubaab yomb te gëm kon bu demee ba tubaab yi di gëm lii di ma jël di ma ci yóbbu fu ne ma leen koy defal ku xam sëñ xaadim xamante amatul tax jot nekk fii Sénégal wala mu nekk fii chaque jour maa ngi ci voyage chaque jour maa ngi kon loolu sant yàlla la kon yokk awra bi képp ku mu jaral ba nga jël sama numéro téléphone ma defal la ko incha allahu bi si diiru cinq jours di nga ci gis sa bopp du adum càmpan dimension bi kese la nag boo defee appel video pour ñu tànn pour fene nekkoo fi dangay tànn ma won la ni la xoolal dimension bi bii ñaari ngëb la gis nga bi ñaari ngëb la boo xoolee gis nga ñaari ngëb la day des lii ci kaw ndax awra dëgg day doon ñaari ngëb yu mat sëkk am lii ci kaw nga doo ko xam ne lii awra bu mat la kon lii du ay caaxaan yu suuf loolu laa bëgg àdduna xam ko askan bi xam ko waaw waaw bii tamit produit la yoo xamante ne comme produit yi du caagi ne yokk awra waaye day dëgëral awra ndax des fois nga gis koo xamante ni awra bi muy yor day gàtt sa du am doole bu dee jël bii mën na ciy gis boppam bu baax a baax a baax a baax sa du amul benn effet secondaire day dëgëral awra bi bu baax a baax a baax. no bokkuñu ndax bii bu dee bant bi à vie lay def ak yow bant bi bu ñu la ko xasee defal moom à vie lay def ak yow sa âge bu ne mën na ko def demal ba am quatre-vingts ans wala amal soixante-dix ans déedéet demal ba am soixante-dix ans. mu leer la yow mii mag nga fu ñu toll nii ma defal la ko nga gis sa bopp si diiru cinq jours bu dee bii la nag dangay naan da ngay jël meew nga koy boole di ko naan boo paree pare na boo ko bàyyee bàyyi na la noonu lay demee boo ko bàyyee bàyyi na la loolu tax ñoom ñaar mënuñoo bokk. waaw wàllu seet bi tamit comme ni ñu koy waxee rek saa su ne yéen waa Tawfekh TV moom da ngeen mën a laaj trop waaye tamit noonu la ndax taw Tawfekh TV moom képp ku xam ci leeral rek lay doxee. ndax comme ko da ngeen a bëgg lu leer ba ñëw seet si sëñ xaadim kon saay su saay su nekk sëñ xaadim war na leen a wan lu leer seet bi comme bu dikkee nit bu dikkee pour ma seetal ko dañu koy seetal mën naa seet ci taaw bii nga ne gis ni cosaan la dama ciy seet damay seet ci li nga xamante ni kat moom mooy ndox damay seet ci seetu waaye seet bi mille francs la seet bi 5000 francs la ñu seetal la mu wax la li ne ci yow lépp ci kàttanu suñu borom walu set dedet walu set munuma ci am jafé jafé ndax parce que luma xam la xam nga doonuma serigne ñaan kat bo xamantene dama top top rek di ñaan limay def ni samay mam dañ ko daan def daan fajj nit ñu wéré di di fajj rap ndax yag na len ko ci guuy gi guuy gu mag gi ma ñëk dem fofu sama guuyu mam la sama mam mo fa defon def ay jinnem kon ma ñew diko def kon yalla dima dimbali bu baax sëñ xaadim tebul top yor pitaw ndax pitaw la nga koy tiyé dang koy xam xam pitaw ba lamuy wax ak pitaaw ba lan lay def nga dog ko téye. waaw gisoon na ma fii may wax ak yow nii tax am na politiciens yu bari yoo xamante ni maa ngi digaale ak ñoom fii may wax ak yow nii ndax yàgg nga fi toog di ma xaar yàgg nga fi yow waa Tawfekh TV toog di ma xaar pour jël ma émission waaye gis nga gisoo leen ma maa ngi woon ci àll bi ndax man képp ku ma xam-xam ne si àll bi laay liggéeyee. ci guy gi laay liggéeyee wala ci place xam bu yooyu may wane noonu fa laay liggéeyee kon ku ma xam xam ne sëñ Xaadim amul jotu toog amul jotu nekk di wax wax ju bëri wala nangam képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci langue politique bi incha allahu rabbi nga bëgg ci ndam ci kàttanu borom bu ñu digaalee incha allahu rabbi dinañ jël gox ba nga soxla dinaa ko jël teg ko loxo ndax am na loo xam nit ki bala ngay jox nit ki da nga koy xam ñun la ñuy def dañ koy xam yor secret yu wóor yor secret boo xamante ne képp ku ma ko jox ci kàttanu si borom di nga ci gis sa bopp yusu lu wér lu wér ñaan nak damay ñaan yalla rek yalla moy dogal yalla moy nangu waye ma ngi ñaan yalla suñu borom yalla mi nga xamantene mom moy nangu ñaan Yalla mi nga xamantene mo ni ñaan leen mo may leen ma ngi del diko ñaan ba kep kuma digalel yalla may ndam ci lay dox waaw euh, mhm. man buñu bu ñaan rek man bayiwuma kenn ñëpp lay ñaanal moo xam musique nga dangaa dem ba benn instant nga toog fay dama lay ñaanal pour nga jugaat loolu mën naa ko def ci kaw nag mu jaral la ma nga ma nga yéene ki nga jàpp ne suñ xaadim mi ma demee ci moom ñaan ko sama aajo dina faju boo dikkee ci man ma ñaanal la jox sama garab jox la samay ci kàttanu si borom lépp lu ma ci digal nga def ko da ciy am ndam. Mm-hmm. loolu tamit day am xam nga nit ki naa ne nit ki am na ñoo xam ñoo ngi dem ci sëriñ sa gëmuñu sëriñ bi kat bu leen ñaanal seen aajo day faju su ñoo ngi dem demu ñàkk pexe la ñuy dem waaye dama lay xamal leen nit ki boo ko gëmee nga gëm ko rek sa yàlla rek tax nga dem si moom ni ko ñaanal ma jàpp naa ne bu la ñaanalee bu xamee la muy def jox la garabam incha allahu rabi yàlla mën na cee teg loxo ba mu ànd ba mu am ndax ñun ay ñaankatu yàlla rek lañ dañuy ñaan yàlla rek yàlla mooy mottali lépp lépp loo xamante ni ñuy def rek yàlla moo koy mottali waaw kàddu gu mujj gi maanaam mooy kàddu gu mujj tax amul ndax ñaan nañ yàlla chaque jour rek di leen wan ak di wax ak askan bi di liggéeyal askan bi kon kàddu gu mujj moom loolu wax bu yàqu loolu baaxul tam jar nga koy wax kàddu gu mujj moom wujjantal wax moom ñaanuñ ko yàlla wax ko léegi waaye dama lay xamal na yuusu képp koo xamante ni yaa ngi seetaan vidéo Sëñ Xaadim bii maa ngi lay ñaan sit bii muy daw nii muy Tawfekh TV bii nga abonné ci ndax Tawfekh TV jàpp naa ne ay njariñ moo ci ne nga abonné si Tawfekh TV di nga gis daraw sëñ xaadim du la raw beneen bi tamit di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal suñu lions yi muy équipe nationale bi yàlla def mu jël coupe bi ba mën koo indi fii waxoon naa fi nag ay sarax man leen bu ko équipe bi defee ci kàttanu suñu borom incha allahu rabbi coupe bi dina ñëw Sénégal xam nga nag ñun Sénégal ni ñun dañu doon loo xamante ni dañuy xeeb boo demee yeneen dëkk yi duñu xeeb dara loo leen wax dañ koy def ndax yeneen dëkk yi bu ñu bàyyeeku bu coupe d'Afrique amee ñuy daw di ñëw Afrique di ñëw senegal fii di fi wut si ñaan kon xam nañu Sénégal ay ñaankatu yàlla ñoo ngi fii kon jàpp naa ñu ñu dëkk senegal bu ñu bàyyi ñeneen di daw di ñëw di fi jëlee njariñ di ko yóbbu bàyyi Sénégal kon ñi ŋànk équipe bi laay wax nañu ñëw incha allahu rabi sarax bii ma leen waxal woon waxoon su ma leen ko waxaatee incha allahu rabi bu ñu ko defee yàlla mën nañ cee suturaal ba coupe bi ñëw Sénégal kon di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp képp ku soxla sëñ xaadim woo ko si numéro boobu si écran bi ci kàttanu si borom boo ci digaale incha allahu rabi dinañ ci jàppale bu baax a a baax a baax a baax